deux mots antinomiques noonee la daal di tijjee li nga xam ne moo di ab chronique maanaam jàmm ak fitna ñaari baat la yoo xam ne wute nañu lool ca la nga xam ne moom la ñuy daal di tekki en ces périodes de ni paix ni guerre il nous faut concevoir un environnement qui fonde la belle tradition de ce pays ou sa substantifique la mu ne nag ci jamono ji nga xam ne dañoo nekk ci am réew moo xam ne ñu ngi ci jàmm waaye itam kenn mënul weddi aw fitna mi ngi fii faw ñu delluwaat ci suñu ay mbaaxi ci teg ne le rappeur DJ Awadi a eu récemment une phrase d'une grande pertinence pour résumer la situation qui prévaut dans notre pays Sonko est le problème et la solution. mu ne nag DJ Awadi fan yi ñu weesu dafa am kàddu bu am solo boo xam ne yëkkati na ko te loolu kese donc képp moom moo yore réewum Sénégal fi ñu toll nii muy Ousmane Sonko mooy jafe-jafe bi waaye itam mooy saafara bi teg ci ne nier cette évidence c'est justement plonger le pays dans ne nag loolee ku koy daal di tànqamlu daa fekk ne yow bëggoo réew mi ñi fi nekk daal di gindeeku situation bi nekk itam ñu daal di ciy génn mu teg ci ne si on a pu trouver une compromission pour régler des problèmes politiques en remettant dans le jeu certains exclus on peut se faire violence et faire retrouver à ce charmant pays ce qui fonde la commune volonté de vivre ensemble de ses habitants et de consolider sa démocratie mu ne nag bu fekkente ne aw waxtaan mën naa am ba ñu jël ñoo ci mbir yi bu yàgg indiwaat leen kon tey jile war nañoo mën a ut solution boo xam ni mën nañ delloowaat suñu am réew ca situation bu neex ba nga xam ni moom la daan dund saa su nekk ba noppi itam ñoŋal fi lépp lu ñeel wàllum démocratie consentir à des supposés délinquants financiers de recouvrer leurs droits perdus et de refuser cette même mansuétude à un responsable politique qui n'a commis aucun crime cela révèle assurément d'une flagrante injustice mu ne bu fekkente ni daf ko def entre guillemets ñoo xam ne dañu jàpp ne ay délinquant lañ maanaam defkatu ñaawteef ci lu ñeel koppari Sénégal ñoom ñooñu la ñu mën a jël indiwaat leen ci lang gi jël tey jilee koo xam ne moom amul benn crime maanaam faatul doomu aadama sàccul itam bëgg koo jël tegee ko de côté loolee dara gënu koo nekk injustice dafa fës lool ñëpp daal di ciy teg seen gët mu dolli se ne et dès lors qu'il est difficile voire impossible d'enterrer l'ombre il serait hasardeux d'écarter de la prochaine présidentielle celui qui est véritablement le leader de l'opposition sénégalaise et qui mobilise autour de lui des dizaines de milliers si ce des centaines de milliers de Sénégalais mu ne nag suul ker du ko teree feeñ te jamono ji élection présidentielle yi ñuy dëgmal kenn mënu koo xàññ leader bi nga xam ne moo gën a am doole fii ci réewum Sénégal te ñëpp xam nañ ki mu daal di doon mu ne nag kookee waral coow li lépp mën naa dajale ay centaine de milliers maanaam ay téeméeri téeméeri junniy nit ñëpp nekk ay sénégalais dara waralu ko lu dul fa nga xam ne fa lañ toll ci moom jamais sans doute dans l'histoire de ces cinquante dernières années le pays n'avait connu d'homme cristallisant les espoirs d'aussi nombreux compatriotes tout âge confondu Ousmane Sonko mu benn doomu aadama buy def boo xam ni dajale na lim bu toll ni ci doomu aadama ñoom ñëpp nag boole kook seen i ay at wute lool jël seen yaakaar teg ko ci loxoom te kooku du kenn ku dul Ousmane Sonko. dire qu'aucune paix ne peut se faire sans lui ce n'est pas des histoires ou vouloir faire de la peine au chef mu ne nag jàmm ak salaam fii ci réew mi ngi daal di koy tabax faaw rek moom Ousmane Sonko ñu daal di ko ci boole génnee ko ci leneen lay dal di ndurool waaye du nekk benn yoon bëgg dimbali ki nga xam xam ni mooy njiitum réew mi mu ne nag cela procède tout simplement d'une analyse lucide de la situation mu ne mbir mi képp ku ko analyser saytu ko ak xel mu sell di nga xam ne moom Ousmane Sonko mënu cee ñàkk mu teg ci ne cette vérité seuls les pyromanes et les flagorneurs du chef refusent de l'admettre mu ne dëgg gii nii ñi nga xam ni seen yéene rafetul te ba noppi itam dañu wax dëgg kii di njiitum réew mi ñoom dong ñoo koy bañ dégg ba noppi mu teg ci ne les cheveux sont absolument du domaine du possible mu ne li nga xam ne mooy élection yoo xam ne ñëpp a ciy daal di ñi nga saytu mbiri Sénégal ñi ngi koy daal di sàkku loolee lu mën a nekk la pour cela le préalable c'est de taire nos divergences et d'emprunter une voie qui favorise l'apaisement mu ne loolu pour mu am nag faw ku ci nekk jël la nga xam ni moom nga moomal sa bopp tegee ko de côté jéem a xool lu ñuy boole ngir jàmm ak salaam dal di mën a am naka lay amee nag ak lan la a a am mu ne ce resserrer le blocus autour du domicile du leader de PASTEF et qu'aucun juge n'a autorisé mu ne mbir mi mi d'abord ci ñu jël barrage ba ñu def buntu kër Ousmane Sonko dindi ko ba noppi ndax loolu teguwul ci yoon ndax amul benn attekat boo xam ni moo ko dal di santaane mu ñambaas ci nag ne c'est un abus de pouvoir loolee njaayum doole kese la il faut également libérer ces centaines de pères et mères de famille qui croupissent dans nos prisons ces jeunes gens dont un zèle trop ostensible voire avec fanatisme leur attachement à ce même leader de Pastef mu ne ñi nga xam ne itam ñu ngi ci biir kaso yi nañ leen jël libéré leen ndax ñu yor seen i ay njaboot lañ te war nañ caa dellu ñoom ñooñu ñëpp nekk ci kaso yi lenn kese la def loo xam ni mu leen fa yóbbu muy jël seen mbëggeel def ko ci benn nit waaye itam ànd ci ak Pastef goo xam ne kenn mënu ko natabli ceux qui sont autour du chef doivent l'aider à sortir par la grande porte jouer avec des allumettes dans des cases au toit de paille mu daal di jeexalee ne ñi nga xam ne ñoo wër président Macky Sall tuddul turam nag chef la fa daal di woowee ñoom ñoo ñee ko wër ñoo ko war a wax dëgg dimbali ko itam ngir mu génnee ci bunt bu yaatu bi bunt bi nga xam ne day bàyyi ci Sénégal nataange jàmm ak salaam bunt bi nga xam ne itam mooy tax bu demee ñu am fàttaliku bu rafet ndax nag nee na kenn warul fowee ay bantu allumette ci foo xam ne néegu Seex wala bokk ñu tuddee kam bopp comme ni nga xam ni onee la ko waa Jolof di woowee dëkku El Malick Ndiaye lii moo nekkoon jàngat bu gàtt bi nga xam ne am na solo lool Pape Alé Niang ko ci page Facebook am jëlee ko nag ci journal bi ñuy woowee Le Témoin kàccoor bi AGT News